Les gens n'en veulent pas au président de la République Macky Sall. Mhm. Ils en veulent à certains de ses responsables. Tout à fait. Tay jeunesse bi su ñu toogee di di di xatu di nangam sangam parce que damay jël sama exemple man parce que su ma dañ man. man. Mhm. sama quartier bi ma dëkk di Ndiatiar maa fa le président Macky Sall en 2008. Mhm. sama buntu koñ saa y élection jotee élection yi passé guleet élection 2022 mm-hmm. Les dama dem di len wax jóg len ñuy voter ñu né non non dinañ jog voter, mais on montrera au à Macky Sall que dañuy dem pour sanctionner ko parce que falew la mm-hmm. c'est comme ça que les gens votent mm-hmm. ils se lèvent parce que dañu gis ni ki moo fi nekkoon démb ak barke demb c'est-à-dire gisuñu mom par exemple man je peux pas créer un emploi mënuma utal jeune liguey mënuma jox financement jigéen mhm. est-ce que tu comprends mais ñooñu suñu gisé ni depuis 12 ans waa parti bi mi ray bopam di wër télé di sétane di di xéxal waa ji régler problème wa koñ bi mhm. wa koñ bi dañuy jox sanctionné ki nga xamni ne moom parti bi mhm. té koku Macky Sall du ci lène d'accord tu comprends donc daf ci bëri nak au sein de l'alliance pour la république dafa am ay ño xamante yalla daf leen Macky Sall da lay dafa yëkkati seen ay ndomba tankam ay ay pouvoiram jox lène ñu resté des ñu def ba pare bañ seen askan parce que yéen bañ seen déglu rek. ñu def nii waroo nangu ñu ñu ñu tooñ la benn yoon. voilà tooñaat la ñaari yoon di la tooñaat. waaw xam nga nag na ndeysaan xam nga moom président Macky Sall xol bi. moo koy joxal joxal ko ñun daal ñun ñun ñun mën nañoo ñun mën nañoo sanctionné. Ah. mais dafa am ñoo xamante ne mënul ci mënul leen sanctionné mënul leen dara mais ñun moom wax dëgg si yàlla ñun moom faale wuñu toppatoo wuñu waaw ci wax dëgg yàlla ni émission bi di doxe <laughs> am naa nag ay question mais damaa bëgg. nga joxe sa jox ko benn. Ah. Ah. en attendant parce dama am lu may lu ma dégg te jii ci déclaration Ousmane Sonko. Mhm. yéen seen candidat muy Amadou Ba. ma dégg Ousmane Sonko ne bi ñu nekkee foofu ci impôt domaine di liggéey daana jël moom mu ne ko teg fi maanaam yàgg naa jël lu moomut waaw mu ne ko yàgg naa jël sama question mu ne ko ah, mu ne ko yàgg naa jël lu moomut mm. ma ne ko tegal ne du ko may dara léegi nag yéen seen candidat lañ attaqué est-ce que man dama lay laaj rek ndax jamono ji Ousmane Sonko di nek impôt domaine an nek fa ak euh, Amadou Ba amone doole yi Amadou Ba di def mu ne ko bul def. ah c'était un inspecteur de domaine tay kenn musul gis nak un agent bu nan dig directeur am tegal c'est-à-dire dans l'administration sénégalaise lolu waxu politicien la. Hmm. Ousmane Sonko li wax tay waxu. politicien da nga bëgg wax ne fondé wul ko. c'est pas fondé. parce que amuloon pouvoir amul pouvoir bu mu togué bu buy vérifier le premier le le directeur général amul pouvoir bobu bu vérifier le président le directeur général des impôts et domaines Dans loon toog fi nga xam ni fa la ñuy décision parce que il était secrétaire général de syndicat Le nit ñi xamul tey amul lu mu yekkul Amadou Ba pour peindre ko noir ne Amadou dafa bon Amadou bu bon bi Ousmane Sonko ne moo bon Amadou Bobo mo taxaw ñu war ko radier au niveau des impôts et domaines Amadou ne du signer décision de radiation bi parce que Ousmane Sonko dafa am ay soxna am jabar am jaboot am dom yu muy dundal nañ ko affecté mo gën ñu radier koku Amadou Bobo bon n'est-ce pas bobu la Ousmane Sonko ne dafa bon Amadou bi mu ne dafa dafa bon pour la république de ce pays dafa bon du nit ku baax la fa le fameux congrès du renouvellement du syndicat Ousmane Sonko moo taxawoon Amadou Ba ñëw taxaw kaawu Basirou Diomaye ak kaawu Ousmane Sonko jàkkaarloo Ousmane Sonko téye loxo Basirou Diomaye ba ba ba loxo euh, Amadou Ba samp ko mbër yëkkati ne yéen da ngeen yàkkamti kii moo fi gën hmm? Ousmane Sonko waaw Ousmane Sonko boobu moo wëlbatiku ne Amadou dafa bon Amadou bi bon ba muy wax naan Amadou bi bon Amadou boobu de senegale bu toogaan ci bunt bureau salle d'attente am ak rongoñam su duggee biir bureau par rapport à des ak sénégalais boo mënti doon soo génnee da ngay ree parce que dina fexe ba nga def ba ñu ba ba ñu wàññil la li nga war a fay ci fiscalité kooku ku bon la te ñépp la koy defal nag amul ku bëri doole amul ku ñàkk doole Amadou boobu la ñuy wax ni Amadou boobu moo bon moom la Ousmane Sonko di wax ni Amadou boobu mooy nañu baal nag parce que man lu ma neex mun naa ko wax Amadou Ba mais du nangu keneen ko ko ko wax du ma ko nangu Ousmane Sonko boobu di wax ni Amadou Ba moo bon Ousmane Sonko dafa jàppoon ni Amadou Ba su nekkee ministre de l'économie et des finances dina nekk directeur général ARMP parce que loolu la doon xëccu il voulait être directeur général de l'ARMP je précise parce que booyu Amadou Ba la woon moo doon téye saagu Amadou Ba moo ko doon attaayal Amadou Ba moo nekkoon baayu Ousmane Sonko ak baayu Bassirou Diomaye fay ci biir impôt domaine Ousmane Amadou dafa tas yaakaaram moo tax mu jël yoonu boppam parce que xamu tax defu ko directeur général fexewul nu ñu fay directeur général mm. c'est parce que il n'a pas les compétences un directeur général ah il n'a aucune compétence pour être directeur général de la l'ARMP. kon lan moo tax ñu ne ko fi déjjët yóbbu. déjjët yóbbu fan. génne ko foofu. non compétence laa wax liggéey. Mhm. liggéey. Mhm. il était secrétaire général xeex rek la daan def xam nga gis nga ko syndicaliste moom mooy koy xeex. <laughs> Amadou bi mu laaj. ne fu mu jëlee ay milliards mhm. ma wax askanu Sénégal ni fonk ma yu impôt yu domaine sama copain nag da koy bañ. Non, non, ci fonds commun yu impôt et domaine ah. su vous ci des somme yi ba inspecteurs yi di yu bari Ousmane Sonko moi, je ci domaine en tant que secrétaire général des des inspecteurs des domaines pour fonds comme bi Nous avons a inspecteur inspecteurs de di presque 30 millions par deux mois trois mois Amadou Ba directeur général des impôts et domaines touche 400 millions de fonds communs par an

kii moo ko yor xam ko mu doon joxoñ boobu Amadou Ba la doon joxoñ boobu Amadou Ba compal na ko boobu Amadou Ba était directeur général des impôts et domaines ma ngay jaamu soxlaam parce que jàpp na ni su Macky Sall faloo su nekkee ministre day dem maintenant xam nga lu tax inspecteur des domaines yi mhm. la ñu jàppoon nag Amadou Ba pour su nekkee ministre de les des inspecteurs ministre des de l'économie des finances ce mhm. sera le règne des inspecteurs des domaines mhm. parce que nak soy Sénégal d'habitude ministre de l'économie et des finances inspecteur du trésor la dan donne ko setlu bu baax dafa am concurrence rivalité entre les inspecteurs du trésor et les inspecteurs des domaines mhm. des employés domaines mhm. mais tay ba Amadou Ba ministre de l'économie et des finances dañu japp ni mhm. règne le règne des inspecteurs des domaines Amadou Ba ñëw lolu amul parce que amadou limu gëm moy compétence limu gëm moy taxaway limu gëm moy ku mën liggéey ousmane japp ni dina ci am promotion parce que mo nekkon boyam nak parce que nak li nit ñi xamul moy ba muy takki ana jamanka kum ko bayele won laaj baa loolu nañ la ko amadou ba amadou ba lañu bayele ana jamanka hmm. kon digënté bi sori na hmm. diggante bi sori na lool. xanaa loolu moo moom def ma ne répétition la parce que yaa ngi wax sànq ak ak le cas de Suzanne. non non dama ne diggante bi ma la du ma wax lu ah, ñaaw ci Suzanne léegi nag boo paree moo tax ne la léegi diggante mu soree waaw su diggante soree diggante nit ak nit ba ngay takk sa ñaareel bàyyile ko Amadou Ba waroo xanaa kon ku bon nga bàyyile sa ñaareel mm-hmm. ki muy peindre en noir ne dafa bon baaxul. moom nga bàyyeele sa ñaar yow tamit di jaay fii yaa fi toog nga wax fi Amadou Ba. bi mu nekkee premier ministre dama bi mu nekkee premier ministre le kilo soble di jar 2000 francs waaw dama ne man tey yaa ngi ni jàppal tànn man man lu ma neex parce que ci bennoo bi laa ne lu ma neex mën naa ko mais ba ngay wax moom waaw bàyyi man euh, man lu ma neex foto ko xoolal ba pare dafa démissionné ba pare yàq lu mal ni xel waa affaire xoolal waaye station yi mu bi mu xoolal moom xam nga lu ñu naan mer mer génn en tout cas vaara ngi fi moom daa mer génn daa mer génn fii la taxaw tey di dafa ànd dafa ànd Amadou Ba man man moom

ku ko wokki ma xuri la mm. man aadama Fall su ma neexee ma yekk Amadou Ba lu ma neex mais ku ko wokk ba xuri la loo yàq sonk nag xale yi sonk yi eh, nañu am fit rek sañ-sañ toog ci plateau yekkal ma ko nañ ma dinañ fi ñëw <laughs> saaga yi moom saaga yi tàmm naa ko mm-hmm. maa ngi leen di nuyu parce que saaga yi ñaan la. yow li la Jibril Bay wax rek mu doy na. kuy kuy euh, kooku man xamuma ko xamoo ko yéen a bokk fi ngeen bokk. mais li nga xamul a xam nga luy xam problème xam nga luy problème tubaab nee na qu'on de toi c'est affreux. lan nekk déglu rek tubaab laa lay lakk ndax xam nga sa verre yi dafa rafet. waaw lakk la tubaab bàyyi xam nga. tubaab nee na qu'on parle de toi c'est affreux mais il y a pire mm-hmm. qu'on ne du tout de toi mm-hmm. waaw loolu la tubaab wax. xam nga nit toog ci tele di wax ci man dafa metti nag neexul. kooku nag sama nijaay la mais nag li ci gën a bon. mooy nga toog kenn du la tudd. Mhm. man kooku xaw ma ko. Mhm. mi ngi may may tur. sama nijaay xam nga nit su toogee ci yow naan da nga bon. di la tudd di la toog ci télé di la tëbb di la taas. c'est parce que dañ ko romb sama baay nee na ma. Mhm. su nit taxawee nga nañ ma baal ci kàddu yi. Mhm. ne sa taat dafa rëy. Mhm. c'est parce que da koo romb. Mhm. soo ko romb doon du la xool bay gis sa taat naan dafa rëy. loolooy dëgg. maa ngi koy baalaaq ñi nga xam ne ñooy saaga nag mooy ñaan yi. ñaan yi nañ ñëw rek. ma naan amin